asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit di mbokk taalibe yi eh, ñu ngi leen nuyu baax di leen ziyaare di leen baal bu baax baax te di leen baal di leen xam tey jii ñu ngi fii ci Daaru Koso di dëkk borom Daarul Muxti eh, bi nga xam ne ci la yàbb dëlan doomam ju tedd jooju di sëriñ Mahamadou Mbàkke mu nekk mu nekkoon fi te yi ñu teew fi di samedi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre ci bis bi nga xam ni moom lañ doon woote bis bi nga xam ni moom la ñuy def ngir di ñaanal sëriñ Maamoodan ak njabootam gépp li ci jëkk ak li ci jiitu yi mooy sant suñu borom ak jàng alxuraan ak jàng xasida te jii ñu teew fi ànd ak mboolem mbokki taalibe yi ànd ak mboolem mbokki julit yi ànd ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy seq liggéey bi ak mboolem ñi nga xam ñoo askanoo ci maam mamaaram moo xam muy ak waa Daaru Muxti ak Touba ak fépp koo xam ne mbooloo bàyyi ko na fa te fii ci liggéey bi ànd ak ñun ci euh, ci bis bu tedd bi rek euh, di bis boo xam ne it bis la bu ñuy def ngir fàttali ko ci jàmbaar ju tedd jooju sëñ moo Mahmoudan moom mi nga xam boroom xam-xam la boo xam mboolem kilifa yi ñuy gis fii ci euh, ci ci ci Touba ak Daaru Muxti wala ba ci réew mi sax ñu ci ëpp fii leen jaare fii leen sàkko xam-xam fii la leen indi lenn ci taalibe yi ñi nga xam ñoo fi jaaroon ñu di leen yar leen tërbiya koo day doon koo xam ne royukaay la boo xam tey bis bii ñu jëf rek firndeel na ko ci teewaayu mbooloo mi ak lenn ci ay kilifa yi nga xam ne teew nañ fi kon loolu rek mooy euh, li nga xam ne tey moom lañ fi sàkku loolu rek mooy li nga xam tey moom lañ fi moom moo taxoon sëñ bi di woote ki nga xam moom moo fi nekkal nag di sëriñ Maxtaar Mbacke ci kàddoom ak ci turam ci la woote woon bis boobu ànd ci ak rakkam bi naan sëñ Abdoulaye Mbacke ak doom bi naan sëñ Maam Thierno ak mboolem njaboot gépp ak mboolem taalib bi yëpp Euh, tey jii teew nañ fi ànd def ak mboolem mbokk taalibe yi ànd fi boole mboolem mbokk jullit yi di ñaan yàlla def nañ ci tawfeex lépp luñ fi sàkku rek ak lépp luñ fi mbébét rek yàlla def nañ ko ba naam fi liñ koy suñu rek barke si Amadou Xadim Akere ختم kon tey jii ñu ngi ci bis ba léegi ñu ngi fii ci jumaa ji ci buntu barab sëñ Mame Mor ko bi nga xam ne tey moom moo njëkk a nekk xalifa sëñ Mahmoudan di jëmm joo xam ne it ku ràññee na ko ci taxawaayam ku ràññee na ko it ci xam-xam ku ràññee na ko it ci liggéey bi nga xam def nag fii ci dëkk bi bu buñ ci bi ci gën bi ñuy gën a taxaw rek mooy lu mel ne jumaa ji nga xam moom loolu dendal nga moom moo ko tàmbali def ci liggéey boo xam ne ak pësteef boo xam ni kenn mënu koo takk Euh, ak dëkk bi it organisation ni ñuy organisé wu ak ni ñuy doxe ci xeeti liggéey yu bëree bëri yoo xam ne ci loxoom bii la jaar moom moo taxawu teg ay yoon yoo xam ne ci la njaboot gi jaar ba tey jii lépp loo xam ne lu ñuy roy ca la fi sëñ Mahamadou bàyyi woon la dara dara manqué ci. kon tey ci bis bi dana baax tuuti ñu fàttaliku ko moom jëmm ji di sëñ Mamoor nga xam moom moo njëkk a nekk xalifa sëñ Maamoodan euh, ku gis dëkk bi it xam ni li bari ci ëpp ci li am ci dëkk am na fi. te li si ëpp ci loxoom lay jaar te ku ne xam na dégg nga kàddu yi nga xam moom daan na fi yëkkati di ko wax amul kenn kenn ku mën a taxaw ni maa tax nangam ñëw daaru ko si te loolu moom jëmmam ji moom moo moom moom moo moom moo dox moom moo taxaw taxawaay boobu doon kilifa goo xam ne it foo ko tudd ñëpp danañu ko ràññee li ci am solo rek base bi nga xam moom lañ daan def fii ci pénc nga xam daanaka daana nekk 30 mètres sur sur 25 mbooloo mi fi daan teew la liñ fi indi mooy xam-xam bi nga xam moom daane ko fi jàllale te ku ko tudd rek tudd xam-xam ku tudd it tudd fit tudd it xam ne ku am jom la te am dignité bokk na ci ay waxam daana wax ni gis naa lu gën lu ne muy am dignité am nga te féete ak sa ngor tey doyloo li nga am te féete ak sa ngor doon loo xam ni kàddu loo xam daana ko yëkkati ba boo gisee yar rek day feeñ ci moom loolu sax dana feeñ ci jëmmam yi nga xam ne ñoom moom la fi bàyyi di ay takk garab bu mel ne sëriñ maam mi nga xam moo ab taawam ak sëriñ Ahmadou Mbacke ak yeneen njaboot yi nga xam bàyyi na leen fi boo gisee ci ñoom rek da nga xam ne kii ki leen fi bàyyi woon am na am na lu mu doon am na it fu mu woon kon tey jii ci bis bi dana baax tuuti yombul dinañ am ay nit ñoo xam ne incha allah dinañ am ay kàddu yoo xam ne danañ ko def ci moom kon loolu lañ doon jàllalewaat fii ci penc mi ñu ngi nii ci bu sëñ Mamor nga xam ne liggéey bu baree bari ci dëkk bi euh, moom moo ko fi taxawu ba yàlla dogal mu jóge fi sëñ Maxtaar mais nga xam ci lañ bàyyi ko ci moom it woote bis bi nga xam moom sëñ bi it bokk na moom moo ko njëkk njëkk a woote njëkk koo def ci année 1991 ci lañ ko tàmbalee def guddi waaye bi sëñ Mahamadou jëlee ci 94 ci 96 ci lañ euh, tàmbale bis boobu di ko def ñaan ba tey jii mu yaatoo yaatoo ba nga xam ne mbooloo dajegu fu nekk di fi teew kon ñi ngi ñaanal sëñ Mamoor di sàkku ñëpp ñaanal ko yàlla dolli ko yërmaat ak njéggal ak mbooleem ñam fa nekk ñëpp njaboot sëñ Mahamadan bi di ñaan sëñ Maxtaar ak njaboot sëñ Mamoor yëpp yàlla fi barke bu tedd bi tey ñu ngi taxaw moom fii ci buntu barab sëñ Mamor moom bokk ci mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci barab ak sëñ Mahmoudan ci maamam ku mel ne sëñ Mor Xar Sylla tey jii ñu soxla ay témoins yoo xam dina aj ci sëñ Mahmoudan ak sëñ Mamor mi nga xam ne tey moo nekkoon xalifaam bu njëkk te yàlla dogal tey jii mu bokkoon ci ñi taxawaloon bis bi ba mu wute ko tey ay yan kàddu nga xam moom nga yëkkati jëme ko ci bis bi ak ci mbooloo. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu leen di nuyu di leen siyaare di leen balaax di leen ñaan suñu borom mu baal na ak ñun ñëpp nga xam ne de sëñ Mor de wax dëgg yàlla yi nga xam ci moom wax man <coughs> sëñ Mahamadan soixante soixante six laa jébbi woon ci sëñ Mahamadan ñu nekk ci Maam Mor moom bu nekk Maam wax dëgg yàlla yi nga ne moom xam naa ko ñoom daal xam naa ne jàmbaar yoo xam ne ji taxawle dëkk bi bu baax ndax loo fi gis tey mu nekk rek kii toon mooy ndox meek jumaa ji wax dëgg yàlla moo ko taxawal ba ba mu egg bi mu yàlla dugalul mu moom wax dëgg yàlla am na yéene loolu la yàlla dogal ci moom kon nag ñun xam naa ne li nga xam ci moom suñu wax suñu wax dana suñu wax mënta bari rek waaye li xam ne moom xam naa ne moom wax dëgg yàlla jàmbaar la lool ci li mu daa digal mooy jaamu yàlla ak liggéey kenn ku ne moom loolu daal sant te loolu yi fee nekkoon moom itam waaw mu doon borom xam-xam boo xam ku yar la ku yare la li ëpp seen njaboot jaar fi tey lan nga mën a ci yooyu fànn ko ci wàllu weer moom wax dëgg yàlla dong ay <clears throat> am yoroon ay dongate li ñu leen daal sant mooy liggéey ak jaamu yàlla loolu moom ku ànd ak moom ku ne loolu la lay sant waaw loolu daal moom xam naa ne xam nañ ko ci moom léegi xam ne kii kilifa kilifa moo ko tàmbali kilifa moo àgg ndax boo sañ moo xam ne fi mu tëdd ak li nga xam ne jàmbaar jàmbaar la ndax ku ne xam ne moom liggéey ak jaamu xam xamoon amoon a fulaam joxaat nag doo bi ak jaamu yàlla mu kenn mu ko fangax waaye nag jàmbaro ci liggéey soxla wut alal jàmbaro soxla alal kenn rek dara wax naan jumaa ji la ci waaye du la du sas kenn loolu moo nga xam lépp moo ko moo ko woon xanaa yàlla yàlla yokk leeram la woon am fula la woon am fayda la woon wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf sëñ xadd moom moo joxe ndigal ngir ñu denc ko fi nga xam ne jëf na lu tax ñu mën ko fi war a def loolu moom mat na ci seet baax a baax seen liggéey bi di ñaan yàlla mu nangu ko di ñaanal suñu kilifa yi yàlla yàgg leen fi téwéral leen mel ne bis la boo xam ne fi ñu koy defee muy daaru koso dëkk am taarix la ci yoonu murit ndax dëkku borom daaru mooti la mu sanc ko yàgg fi lool ndax 1923 la ko sanc am fi biir delluwaat ba mu sancaat ko muy dëgg bu mu bëggoon ci xolam lool tax na lu bari ci njabootam yàgg na leen fi waaye mu woowaat leen ginnaaw bi woo ko ne ko dafa dëkk boobee day dëkk bu ma bëgg ma bëggoon nga nekkal ma fa sëñ Mahmada ne ko dinaa fa toog boo ma dimbalee dem ba kuñ ko tuddee di ñu naan la koso loolu yi euh, wane na barkeelu dëkk bi euh, moom mu bëggoon ko loolu moom borom daaru ba ñëpp ñu bari sax jàppoon na ne euh, duutu fi jóge waat hmm, njabootam yu bari am nañu feeñu jamono ku mel ne sëñ Cheikh Khady fi la feeñu jamono mel ni sëñ Basiiru Anta Ñaŋ mi 33 fii la feeñu jamono mu nekk fi ba jóge fi 1941 42 mu woolu sëñ Mahmoudan yebal ko fi sëñ Mahmoudan it doon jàmbaar joo xam ne li borom daaru nekkoon mu jàng ak jàngale ca la nekkoon ba njabootu sëñ Touba ak njabootu borom daaru Moti ñu bare bari jaar nañ ci dëkk bi mu jàng leen xam-xam ba demee daaru Moti mel ni sëñ Cheikh Khady mel ne sëñ Abbas mel ni sëñ Amsatu mel ni sëñ Khalid Sall sëñ Bachirou Anta Niang sëñ Moustapha May sëñ Moustapha Absa sëñ Maam Thiarom Daaru Maan sëñ Modou Muxtaar baree bare bari ñoo xam ne jaar nañ fi mu jàngal leen bu demee Touba ku mel sëñ Abdou Akki moom sëñ Bachirou sëñ Falloum sëñ Bachirou sëñ Isaaxa sëñ Cheikh Laat sëñ Abdou Samat sëñ Sirim sëñ Abdou Laat Say sëñ Mbayum sëñ Abdou Borom Dër bi sëñ Siri sëñ Cheikhu Naalu sëñ Abdou Samat Bousso sëñ Abdou Rahim Diop yu bari ñoo xam daal jaar nañ fi mu jàngal leen xam kon dëkk la boo xam ne dëkku xam-xam la dëkku parkel la dëkkub dëkkub dëkk dëkk boo xam seytaane xamu ko la ndax sëñ bu xaar daa wax naan dëkk koso daa baax ba jaww ji baax euh, moom sëñ Mahamadan mu nekk fi di fi jaamu yàlla di fi liggéey loo fi ñoralit jox ki fi nekkal boroom daaru sëñ Abdou Lahad mi nga xam ne xaritam loom te nekkoon ci jamono yi nekkal fi sëñ bu mag bi euh, mu daan ko jox addiyaam ju bare bare ba sëñ Abdou Lahad tudde na ko doom sëñ Mourtada Mbacke tudde na ko doom sëñ sëñ Mahmoudane jàmbaar la woon joo xam ne euh, tey jamono yam fi nekk lu ne daj na ko fi boobu dëkk bi amul ndox dara waaye mu toog fi di muñ di muñ di muñ euh, mësta dellu daaru ba ba bi mu wàcc liggéey ci biir kër gi la wàcc liggéey kon euh, dëkk la boo xam ne bu am taarix la ci yoonu murit ndax ñii ma leen limal ñëpp di ay boroom xam-xam ñëpp fi leen jaar jàng fi xam-xam jàng fi jàng fi jàng fi jàng fi yar ko fi ñu tarbiyaa leen fi wax أبكارا شكري لرب كريم من غنى زكارا وأرتجي منه في دارين أبكارا que asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatoo ah bokk julli yi bokk taalibe noo leen di nuyu rek leen siyaare ah, di ñaan rek suñuy kàddu fekk leen ci jàmm ak salaam te leen baal àq te leen balu àq ah, te leen xam ne nag tey ji noo ngi ci bis bu rëy ci dëkk bu rëy ci bisu màgg nag fi ñu nekk tey ji mooy ah, Daaru Koso dëkk boo xam ne bii borom Daaru Musi moo ko sancal boppam ci ndigal Sëñ Tuubaa nekk fi ab diir jóge fi yabal fi doomam Cheikh Mouhamadan Mbacké Cheikh Mouhamadan moom mi nekk fi diggante bi nga xam ne moom la fi nekk sëñ Mouhamadan nekk ci diggante bii ba 1976 mu jóge fi lam fi nekk woon it mooy li fi nga xam ne moom la fi waajuram ba nekk woon muy liggéey ak jaamu yàlla jàng ak jàngale moom sëñ Mamadou Ba fi la nekk ba xëy wuju boroomam ci at mi ñu wax léegi bàyyi fit nag doomam di xalifaam sëñ Mamour Mbacké nekk fi la nga xam ne moom la maaja maam ja nekkoon Cheikh Ibrahima Fati ak la nga xam ne moom ci la wajuram nekkoon di Cheikh Mamadan moom it ci la nekkoon muy liggéey ak jaamu yàlla jàng ak jàngale dafa defar dëkk bi aar ko lépp loo xam ne dëkk woon na ko rek lépp loo xam dëkk aajo woon na ko rek fas na yéene moom ci daru moom ci daru kosu damaa nuyoog léegi waa kër gi ñu jox ma turandoo wi nga xam ne moom la ko wéy euh, doom ji duppee di sëñ maam Thierno day ñaan yàlla yàlla guddal fanam te wér lay cëram ba mu sut maamam ja di Cheikh Ibrahima Ibrahima Fati mi ngi tudd aw fan te dese barke ba sut Cheikh Mahmadan Mbakke mi nga xam ne mooy maamam di wajur Cheikh Mamor Mbakke sut ko aw fante de sa barke ba sut ki nga xam ne mooy sëñ Mor Koso mi nga xam ne moo ko meññ dem bàyyi ko fi yàlla ko sutu fante de barke ba ci barke borom Daaru Musti damaa jël euh, turandoo bi nga xam ne moom la ko duppee ah, ah ma ma ma ma doon lu bari ci moom ñaanal ko ne wajuram day euh, kii nag maam laa ci waaye dama ko maamee ndax tur ndax turandoo waa tax turandoo wa moo tabax ji ma bëndu teen sëñ Maamar Koso euh, ñëw xëcc courant bi lotissé dëkk bi soxlawul fenn nag tukkiwul fenn xanaa tam bitim bitim bitim bitim réew toog toog ci dëkk bi ko soxla fekk ko fi. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu fii ci kër sëñ maam Thierno moom sëñ maam maam Mor moom sëñ Mahamadan ñu ngi ànd ak sëñ Mahamadan moom sëñ Mourawa Balla nga xam ne moom fii la ko sëñ Mourawa joxoon fi la jàngee alquran. Euh, ba suñu borom def ko mag mu jóge fi delluwaat ci sëñ Modou Awa Balla fii nag moom mooy koso dëkk bi nga xam ne moom ab université bu mag a mag la ci université Mouride yi ndax ki nga xam ne moom la ko borom daaru fi la ko borom daaru dër muy sëñ moo fi nekkoon daanaka kilifa yu mag a mag yi ngay dégg ci yoonu Mouride yi yëpp waa kër Cheikhul Khadim seen i seenu njaboot ak njabootu borom daaru bi ak njabootu doomu Cheikh yi ñu ci bare bare bare fi lañ xam loolu ba doon ay ay ay ay ay yu mag a mag a mag a mag fii daal dëkkub cosaan la boo xam ne dëkku borom daaru yi gën a mag ci dëkki borom daaru yi ci la bokk ndax ñi nga xam ne sëñ Mamadou fi nekkoon doomi borom daaru ju bari xam-xam la woon borom daaru fi dalul muy jàngale al xam-xam ak alxuraan bari na fii ñoo xam ne nii ay ay ay ay lañ ñi ay forêt yu mag a mag lañ te ñëpp fi lañ génne xam naa ne damay jox sëñ Baye Dame Mbacké rek moom mu sànni ciy kàddu sëñ si bisimilah rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin man sëñ Maam Jaara ñu sant bu baax di la gërëm ndigalu sëñ Mahmadam ak mboolem ñi dëgg yàlla ñëpp xam ne dëkk bu lislaam la boo xamante ne bii kilifa yu bare bare fi jaar jaar ñu ko alxuraan ah, sunu baay bu baax la sëñ Mahmadam lépp li mu xamaan mooy jaamu yàlla ak liggéey ku fi nekk ku fi nekkan ku ne it loolu loolu ci la la ba yàlla dogalee mu jóge fii suñ maam moom mi fi nekkee ci loolu la continuer di ko def kon nag ñii fi desoo gis ne ñu ngi ñaan suñu borom guddal seenu fan te taxawu leen yërëm leen ndax nit ñu baax lañ ñoo xamante ni wax dëgg yàlla baax mën a yem fépp dem nañ lépp luñ mën ñu ngi koy li ñu leen war defal di leen ñàng fu mu toll yàlla guddal seeni fan te wéral leen te wéral mboolem taalibe yi dëkk bi moom wax dëgg yàlla moom dëkk diine la boo xam ne sëriñ seeg taalibe yi ñëpp ci lañ sax kon nag loolu li gën ñaanal leen yàlla yàgg leen bi tëgëral leen barke sëñ Tuubaa jërë ngeen سهري نبي سندي للأكرم رفيع وهابي زكارا asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mbokk jullit yi ñu ngi leen nuyu baax leen ziyaare di leen sant bu baax te di leen gërëm di leen fàttali comme niñ ko baaxoo defee ci bis bi e, ci suba ba léegi ñëwoon ci màggal Daaru Kosu ne fii ci Daaru Kosu ci bis bu tedd bi nga xam ne moom la ñuy def sëñ Mahmoud ak njaboot gépp ak taalibe yi te ji dañ ñëwoon kenn ci kër mag ñi nga xam ne sànq déggee ni ko sëñ Cheikh waxee bokk ñi nga xam ne yaakaar nawet dafay am ñaari nawet yoo xam ne ba nopp sëñ Mahmoud door fee door ànd ak moom ñëw fi e, te ji ñu ngi fii ci këram muy sëriñ Mor Xari Syll ñu ne fii ki nga xam moom la yàlla teg ci bopp njaboot bi muy sëriñ Alaaji Fallu Syll ngir mu yëkkat ay kàddu yoo xam ne da koy jëmee ci moom ak njaboot bi gi nga xam ne moom la suñu borom teg ci kanamam ak taxawaay bi nga xam ne moom la jëmm ju baax jooju nekkoon fi ci dëkk bi. bisimilah rahmaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki taalibe bi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare ci bis bi ak jataay bi ah, di leen sant bu baax seenu taxawaay ak seenu sàkku ci barab bi lenn ci gëstu bi ngeen ko ci defee. barab bi nag barab la boo xam ne borom daaru mi nga xam ne moo ko sanc ci ndigalu Sëriñ Tuubaa la ko bi mu jotee ndigal itam lenn ci dongo yi nga xam ne nekkoon nañ ci dëkk ca daara ja muy Sëriñ Mor Xari Sin moom la fi borom daaru yabaloon ñëwoon na fi ba am fi ci ni ma ko fukki fan ak juróom boo déggee ñu naan daaru koso maanaam darul munir la ko sëñ tubaatu tudde woon dëkk bi nga xam ne mooy leeral adduna di leeral àllaaxira ngir nga di fi liggéey loo xam ne dana la man a tax a jaamu yàlla ba leeral sa adduna leeral sa àllaaxira waaye bu dégg ñu ne daru kosa déeg bi nekkoon fii moo dé moo doonoon déegub kosam léegi biñ koy gor képp kuñ tudde mu ku judd ci at mooma tañ tudde ko borom daaru rek la ñuy wooye koso waaye jéegub kosam bi moo waral ñu naan koso waaye daaru munir la ko sëriñ Tuubaa tudde ki fi yabaloon muy sëriñ moor Xari daa doon kenn ci njabootu borom daaru Muxti bi mu fi ñëwee itam bokk na ci aw nekkinam nekk na fi lu ma fukki fan juróom yoo xam ni ci nim ma ko nettalee mooy waxtu bu xëyee day nekk ci liggéey bi fu ko jant soo mu fanaan fa bu xëyee nekkaat fi ba ndawul borom dooru fekk ko fi woofu nekkin wi am na ci lu mu ma ci wax waaye day am loo xam ne nag moom dërut dërut jar sara ba àgg ca waaw waaye daal moo fi nekkoon ci ndigalul borom daaru ba am fi fukki fan ak juróom borom daaru woolu ko mu ñëw ba mu demee daaru muxti itam fekki borom daaru yor yor ba mu njëkk a gisee borom daaru ca la leetarub soldat sa Sëñ Tuubaa laajoon mu jógee njëreem ndaw la jóge njëriñ fekk borom dooru mu boole ci sëñ Mor Xar ba mu ko waxee la mu ko wax mooy sama liggéey bi na ma ko fi bàyyil ba mu ñëw nett la ne ma bi mu ko waxee borom dooru la ko bu soobee yàlla nañ ko bàyyi lépp ci loxol kilifa gi muy Sëriñ Tuuba loola it daa mel ni suñ borom dibil na ko ci ndax képp kuy dem fu ñuy fu ñuy faatoo ah, sa xel nekk ci li ma li nga ma doon liggéey nag nag ma ko fi bàyyil ba ma ñëw kooku mel na ne am na fu mu sukkandikoo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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokki jullit yi bokk taalibe yi ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaare di leen balaax bu baax a baax comme niñ ko doon def ci suba ba léegi rek ci liggéey bi tey ñëw nañ fii ci kër sëriñ Cheikh Assou Faye moom sëriñ Mouhamadou Habib ñu mu doon koo xam ne kon xam la ci sëñ Mamadou doon kam doon koo xam ne it mën nañ mooy kilifa barab bi tey ñu ñëw ci bis bu tedd bi di bisu sëñ Mamadou doon koo xam ne ku ko xamee xam ko ci sëñ Mamadou bari na ci mbooloo mi ñoo xam ne ëpp ci li ñu xam sëñ Mahmoudan ci moom mi lañ ko xamee ci ay yoo xam ne def na ko ak féete goo xam foofu la ko féete woon tey ñëw fekk ci ko fii di ko ziar bu baax di ko baal àq te di ko ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu ko wér ngir sàkku ci moom ay kaddu yoo ni dana jëm ci mbooloo mi ak ci sëñ Mahmoudan ak jëmmi dëkk bi nga xam ni moom lañ koy moom ci ci la ñu nekk ak bis bi nga xam moom lañ def fekk fi ay kilifa yoo xam ne ñu am solo lañ di sëriñ xarim sëriñ Cheikh Matilay ak sëriñ Moustapha Mbacke di leen siyaar bu baax di leen def kàddu bu baax a baax kon sëñ bi ñuy sàkk ay kàddu bu baax ci bis bi ak sëñ Mamour Dal. ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm nga xam ne ne it euh, bis bi moom wax nañ ci waxati ci sëñ Mahmoudou rek wax nañ ci waxati ci Mahmoudou moom wenn melo rek la am faboon tànkam teg ko ci charia fab jëmmam def ko mu dig taalibe taalibe gi euh, mu fonk ko lool jàpp ko lool. boo ko gisee taalibe bi dana tax nga jàpp ne amul xam-xam te boo gisee ñi mu li nga ne moo raw ci réew mi waaw loolu sëñ Fallou ko njëkk a wax daf ne xam-xam bi ak yar bi ak taalibe gi laa xamul nees koy boole te moom ñett yëpp la boole sëñ Modou Moussa it seereel ko loolu wax ne yéem naa ko ngir man daal ba ma ko xamee léegi mu musuma nuyu tegul dara ci sama loxo taalibe gi nag mu fonk ko lool jàpp ko lool te yàqulu ko dara ci sariyaam foofu mu jaaroon it fi la jaarale woon képp ku ànd ak moom moom la lay digal moom la lay sant moom lay def bëgg nga roy ko ci danaan wax naa lii ma leen di digal bis bu ngeen gisee ma jàdd ko it na ngeen xam ne maa jàdd maa ma dana jàdd waaye yoon moom jàddu ma nga fam nekkoon te bu kër na ngeen ma ñaanal ma dellu ci yoon loolu la wax euh, comme ni ko wax boroom xam waaye ko doon yar la ak yaram bare bari gis ko taamu ko ci luñ si loolu it mën naa la cee wax kilifa yu bari bari ñu ko wax sëñ euh, Basiru bi mu koy jox Abdou Akim di ko jox sëriñ Falilu di ko jox sëriñ Isaaxa da ko ne fii de mënees la fee jànge jàngkat yaa ngi fi waaye nag yar bii nekk ci yow laa bëgg nga def ko ci ñoom ndax sëñ Mahmadan daf maa waxoon ne ma seex xam-xam bu ngeen nee ba ca kanam kenn du leen ko laaj kenn du leen ko laaj fi mu ne it kenn ku ne am na koy laaj sa mbirum diine waaye yar bi moom foo dem danga koy wone mënut a ñàkk moo tax yar la lay jëkk a def tarbiye la lay def yar la da xam ne loola wet googu wet mokk na rumbux fu mu lay digal yi loola lay digal waaw loolu mooy mbiram muy dongo yi muritu mu ngi ci dëkk bi man wooloon na ma benn bis dëkk bi bépp ñu dikk teew mu ne ma góor jigéen bu ñu des keroog ñëpp a teew mu ku ne dangay ngay layoog sa mbooloo yow mal xeyam ma bëgg a layoo yéen fii bala maa dem sama ñaq wii mënuma cee naan ba mandi mënuma cee sangu kon nag duma ciy diggee sang kenn wala ma diggee ci wëgg kenn walbatiku leen topp yàlla lu waaye def ba julli jot na ko bàyyi te def ko walbatiku leen ragal yàlla te xam ne yàlla dafa sàkk yaar yoon ak yaari kër yoon wu na jëm ci kër te ku ci aw te dëppoo yoon wa nga aw dara mënut a nga àgg ci kër waaw waaw ndax nee na kenn ku ne yomal xam sa borom dana laaj noo yore woon mbooloo mi nee nag man dama koo bëgg a wax ak ñoom fii bala maa dem yomal xam <laughs> loolu la waxoon ci loolu yit la nekkoon ndax li lay digal moom da ciy teg tànkam di ko jëf nga di ko gis mu di ko wax nga di ko dégg waaw gis naa koo xam ne ab soxnaam fay yàlla def ñu fakkatal ko mu dikk wax ko sëñ bi sëñ bi ne ko ah moom kay da ngay bàyyi ba mu kii rek ñu delloo ko mu ne ko man kay damay kalaame ki ko def loolu sëñ bi ne ko ah boo ci lekkee benn dërëm la yow man xëyam bala ngaa jéggi siraat danga ko ko jox kooko déggut loola dem kalaame ji sëriñ bi yebal man dama demal seet déglu déglu àtte ba ba ñu ko àttee mu daal koy alamaan euh, juróom-ñetti junni bañ ko alamaane juróom-ñetti junni mu nangu alam mu nangu xaalis ba sëy ba tas ma ñëw fanaan si man sëñ bi ne ma nu ñu def ma ne ko ah la ko tere woon de def na ko mu ne ah, balaa jéggi siraat dana ko fay ca suba sa waa ji si fekk nuy naan daa taaya ko mu bàggale sëñ bi ne na ngeen def mu ne ko ah mi kay teye woon na ko mu ne ko Cheikh kay nee na ma dangaa laaj alamaan ji ko waaw alamaan naa ko juróom-ñetti junni ba jox nañ ma ko sëñ bi ne ko dangay ñëw wuti beneen sëriñ ndax man li ma warloo yow digal la rek nga def ma tere la nga bàyyi te lii ma la digal du sama njëriñu bopp sa njëriñ rek daan na ko nit nag bu la digalee da ngay seet li mu lay digal bu ci amee benn njëriñ bu ko def na nga xam ne boppam tax waaye boo seetee ba xam ne amu ci benn njëriñ na xam ne sa bopp a tax waaw lii ma la doon digal nag euh, sa bopp bii rek a tax ma doon la ko digal waaye du sama jëm waaye nag li nu séq ma yow ma ne la defal nangam nga def ko may la bàyyil nangam nga bàyyi ko dina mënoo loolu nag da ngay seet keneen koo jëbb kooku xaalis boobu ci la paas dem Belgique booba ñu bari demaguñu Belgique dem fa it waxtu sedd bi fa la ko sedd bi jàpp ba mu faatoo fa kenn mënu koo indi Belgique lañ ko suuf waaw bi def na ko loolu yi la nekkee woon ñëpp nag soo dikkee di muritu da lay wax ne la nga fee mën nga fee toog la liggéeyal ma mën nga fee toog liggéeyal sa bopp waaye taxawaal moom doo ko fi defee nee na ma nag mu kàllaf kenn mënu ko ne doo taxawaal waaye sañ nga ko ne doo taxawaaloo fi ma nee na mu kàll doo ko ne doo taxawal waaye sañ nga ko ne doo ko defee fi man soo ma liggéeyalee baax na boo liggéeyalee sa bopp baax na waaye liggéey lu ma liggéeyal sama bëgg a taxawal nee na mënut a nekk doo ko defee fi man moom demal nag saytu feneen foo ko defee boo dee jàng si loolu lay wax jàng mi da ngay boole jàng ak liggéey ak fanaanee waxtaan ak moom ci tarbiya gi mu di la ko wax ba asamaan set loolu daan def ñëpp ñi fi jaaroon. li naa Lo di wax nee na képp ku fi jaar mbooloo moo ko fekk mën nga ne kii jaar na waaw loolu la daan wax nee na képp ku jaar koso am fay at lu mbooloo mi bari bari bari boo dikkee da xam ne kii jaar na fa moom waaw loolu nekkee woon daal loolu mooy jëmmam ak fonk nag ndigal taalibe gi ndax fii bi mu koy sanc dafa jóge mbiri na ñëw sëñ bi ne ko demal jàngi lawal lawal ak mu dem jàngiwu mu ñëwee mu ne sëñ bi jàng naa ko sëñ bi ne ko waaw mun na ko waaye nag sama bokki Taïba Njaañ yi ak sama bokki njigal yi dañoo wax nañ maa bëgg a ab dëkk diggante njigal ak ba Njaañ mun na ko njigal lan dee den mahmadan koso day dëkk bu ma fonk sëñ Touba digal ma ko lu ma fa mës a lëg yi sëñ la ko yóbbu te ku ma fa yóbbu rek naqari nga tax doo fa nangoo toog ma bëgg nga demal ma mun na ko man de boo ma ñaanalee danaa fa toog mun na ko soo demee mahmadan na nga ci way ci jaamu yàlla ak liggéey boo liggéeyut lu ñu la jox lu bari bari dañ naa li ñu koy jox fu mu aw boo jàmmuwul yàlla it bu ñu taxawee yomal xeeb da nga xeeb sa bopp xeeb ka taxut jàmmuwoo yàlla kon nag soo demee wayal ci yar yi liggéey ak jàmmu yàlla rek moo ci dolli njàngale mi nag sëñ Mamadou dolli ci njàngale mi moom moo ko ci dolli nag daf fi daaree alxuraan daf fi daaree xam-xam jiite ko nag lii la woon ba dëkk bi toll fii mos sa wuti fenn lenn it loo wax rek mu ne ah. lii de lu fi ñëw ñëwagul waaye lépp fi ñëw ndax la ma borom borom daaru du waxee bakkan du wax ngir lu neex nit waaye lépp ñëw na waaw lépp ñëw na tey jii toll nañ waxtu yoo am na fi ñoo xam ne bu ñu génnaatoon tey ñu ne nii la dëkk bi mel dañ koy wet dëkk bi lépp nag jëfama akub fi nekk yóbbal bi am na ñoo xam ne ñi ak moom wala moom la moo fi nekkoon bi mu fi ñëw nag euh, ay mag bariwu fi sëñ Massamba Gueye daal fi la ko fekk ak sëñ Mor Khary Sylla ndax bi sëñ bi goree dëkk bi ba àggale daf na sëñ Mor Khary Sylla danga fi nawet xam nga Thierno moom euh, wax wax sa rek lay gor ab dëkk bi ko goree ba noppi rek sëñ Mor Khary Sylla da nga fi nawet mu metti lool ci sëñ Mor Khary ndax kenn niwu fi àll bi dara niwu fi ngaraa fi nekk ak bukki rek ak i segg waaye teewut dafay nawet ba nawet ba jeex sëñ ma soog a dikk soog a dikk ndax koso ñu ngi ko gor 1922 waaye 24 lañ ko sanc waaw sëñ Mahamad Ndike rek fi la fekk sëñ Mor Xari Sil fi la indaale sëñ Massamba Gueye fekk ko fi ñoo ñu mag la àndaloon bi muy ñëw mu indi Abdou Diop ko kàdd la àndaloon muy goneem ak sëñ Mat Jam yi waaw bi yàlla dogalee 1976 bi mu fi njabootam gi mu fi bàyyi ku mel ne sëñ Maam Mor xam ne waaw ñoom itam la leen waroon lépp def nañu ko ndax euh, bi mu fi jógee maam Mor dafa dikk toog mat ko sëkk itam nag di nit ku baax ku am diini ku fonk taalibe yi fonk ñëpp taxaw ñëpp taxaw it nag dëkk bi lu am ci dëkk bi rek lu war a am ci dëkk bi rek mu santaane ko keroog ba ñuy jox sëñ Moustapha May euh, courant bi arafa dafa ne Abdou juuf bu munta jaari koso nañ ko bàyyi ba ko sëñ Ablaat soññaatee mu waat sëñ Moustapha May sëñ Moustapha May ne ko la ma la waxoon su munta jaari koso bu mu dikk arafa Abdou Diouf man la dajal tuubaa euh, noonu mu daan def euh, euh, gaaw bu ne mu ñëw Touba ne ma kan moo nekk koso man na ko koso de sunu bàyyi fa nekk boo xam ne ñun ñëpp moo nu yar moo nu jàngal moo nu dencal moo nu seexal teg nu ci yoon mun ma lu lu mbokk seen bàyyi mën na ko ndey bàyyi mun ma awaa ah lee tax kay sëñ Moussa may wax ma lool léegi kay na jaar si koso nu courant bi jaar koso jàll <laughs> lii lii la Diouf wax daal ne ma mooy àgg rek Senelec dana ko jaarale koso waaw mu daal koy jaarale koso ba làmp yi doy fi sëkk mu soog a continuer arab lii sëñ sëñ Moussa May loolu la def maamoo rek taxaw ci même ñu nekk fi jubóog seeni kilifa lool sëñ Abdou Khoudoss di kilifa gi ñun ñëpp nu maase nag topp ko ak ñoom duñ def si tàgguwuñ ko lu mu digal nu def ko waaw lii ci lañu nekk ba dëkk bi toll fii loolu nag. ci la ñu nekk loolu it ci la sëñ Moxtaar mii nekk keroog ba fi Maamoor jógee dama leen ku fi romb Matar di wuti sëriñ leen ni ngay wut waaye wuti woo ab sëriñ boobu jébbalu rek waaw wala bu la mën a taxaw wuti woo ko leen na ngay raas nag waaye raasoo tey tey loolu la sëñ Moustapha Absa waxoon ci sëñ Abdou Khoudous da ne ku romb Abdou Khoudous fii daal di wuti feneen sëriñ wutoo ab sëriñ am na leneen luy wut loolu moo ci nekk waaw. moom nga jot li mbokk taalibe li ñuy wax taalibe yi rek nañ nañuy loolu gone yi xëy na mag ñi jeex nañu waaye nañuy fàttaliku lu ñuy dégg ci mag ñi ci li fi sëriñ bi nekkee woon jaamu yàlla rek ak liggéey ak yaakaar yàlla waaw. lépp lu la mos a kii ñun fekk suñu kanam keroog ba ci këram gee ci yoor-yoor di dem arafa ñu yenu néeg yi fi la fekk moom kii waaye yow sa bu mu mosaan jóge ci sëñ Mahamadan sa kër gi ci yow laa nekk mm. te nga matee ko sëkk mat ñu woofuñu ndax boobu sëñ Mahamadan yaramam kiiw noonu mm-hmm. bis bi ma fi sëñ Abdoulaye di indi mm-hmm. moo bàcc géey képp ak man ñoo ñoo nekk ci oto bi biñ ñëwee boobu euh, sëñ Fallou nekk xalifa man bi sëñ ñu nelaw bii la ma fekk la la la laa jóge kër sëñ Souhaïbou ay mbir nag yu tere yoo xam ne mënu su koo kii waaye yow de ma suñ maam ma moom xam naa ko moom ndax ñoo ñun ñaar képp daan bokk di di xewlu waaye yow de mën nga li doon te yàlla na la yàlla yokk ci barke Xaadimu Rasuul ngi fii tey ci Daaru Koso ci bis bi nga xam moom la ñuy defal sëñ Mahmoudan ak njabootam gépp euh, tey jii nag ñu tax ñu fi ci kër amoo Mahmoudan gi taxaw fi ak troisième action de maire sëriñ Abdou Khoudoss Ndiaye mu war a yëkkati ay kàddu ci wàllu bi gi ak taxawaay bi nga xam moom ñoom lañ ci taxaw ak ay kàddu yoo xam kàddu soññee la rek ci bis bi ak kàddu yoo xam ne kàddu soññee loo xam dana gis mboolem mboolem mi nga xam ne ak nga xam ne ñoom ñoo fi nekk seen kilifa ci wàllu gi nga xam moom la ñu féete kon sëñ bi Ndiaye bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen bokk julli ñuy déglu ak ñu ngi fi tam yëpp ñoo ngi leen di nuyu ci ko jiite moo fi waroon a teew ndax fan yëpp ñu ngi ànd ak moom ñu ñëw fii ci taxawaayu liggéey ñu ci dëkk bi yàlla dafa dogal ma am gànte ma teewal ko fi tey man nag dama fee teew ñaari teewaay bi ci njëkk mooy teewaayu bi ndax man kër gi muy kër sëriñ Mahmoudane ak kër sëriñ Abdou sama sëriñ moom wax na du yaari kër yëpp génn la moom moo ma boole woon ak sëriñ Makhtar Mbacke loolu mooy sababu teewaay bi ci njëkk nga xam ne kër gi man mooy sama sëriñ Abdou Khoudoss bi ci des it maire yi abal ma fi pour ma teewal ko fi comme ni ko sëñ naa waxee rek euh, mën nañ ne sëriñ bi yëpp mu ngi fi ndax yaakaar naa guddi talaata wala àllarba ñëw nañ fi ci wàllu éclairage public bi ñu doon leeral. jaar ko ci chef de village ci ndigalu sëriñ bi muy dëkk bi ñu war ko leeral gannaaw bi it ñu amaat yéene yi yoo xam ne waxuñu leen en tant que maire mais yéenay taalibe ci dëkk bi muy yeneen làmp yoo xam ne jàpp nañ ne bu nekk ci penc mi ak li wër penc mi dana yokk taaru dëkk bi moo tax ñu ñëwaat yokkaat fekk na ñu joxoon Moustapha sax monte na ba mu des mais amoon yéene ci dëkk bi amoon yéene ci sëñ xam taxawaayub sëñ Mahamadan ci diine xam taxawaayub sëñ Mahamadan ci islam xam ko taxawaayub ci kër borom Daaru Muxti xam taxawaayub sëñ Mahamadan ci yoonu murit nuy nu amoon yéene joo xam ne dañoo ji ci jëf-jëf taalibe loo xam ne waxtaan ci sëñ bi waxtaan ci sëñ waxtaan ci yéen noo xalaat du toll 24 heures ñoo dëkk bi war nañ war nañ ci ji xawaat beneen taxawaay ñu leen fi yeneen lamp yoo xam ne maire moo ko fi indi ak ñi ma war a àndal ñëpp équipe bi mu àndal ñu ñëw fi def ko mooy lamp yi wari penc mi xanaa moom bokkutoon ci li ñuy programme ci taxawaayu meer boo fi waroon yow mi yàlla dogal nekkul kon xam ne daal fee mu nekk moom taalibe lañ li ñu waxoon daal bu dee benn bu ñu sedd kosa moo bu doon benn kosa lañ koy jox bu doon lu ñu lim kosa la ñuy tàmbali loolu ñu waxoon ci loolu lañ gëm ndax dëkk boo fi sant Mbàkke fii rek kosa mooy sa waaju yeneen dëkk yi si yëpp fii ci 46 villages ay taalibe lañ mais boo xam ne rek sant ku sant Mbàkke la doomi ci anoo ko fa sant fii nag borom dooroo ko santil boobam wax nañ ne def na fi juróom-ñetti at xam nañ ab taxawaay bi ndax benn sotub sëñ Tuubaa bu mu defar tey ba moom jamono rek doy na liggéey bi sëñ Mamadaan te loolu mooy li gën a ndaw ci li def kon daal ñu ngi sant di gërëm di bala àq ñu ngi rafetlu taxawaay bu baax a baax baax waaw waaw gi nag bii mooy suñu première euh, année ñun ñu koy teewe waaw léegi gis nañ fi nag ay ay kii yu ay coppite yu bees daanaka gis nañ ni dëkk bi dëkk dëkk dëkk sëriñ la dëkk taalibe la hmm. ba màggal gi daro ba léegi waa dëkk bi ñu ngi si surtout jigéen ñi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi def loo xamante ni liggéey bu am solo daanaka chaque jour dañ daan xëy di nettoyer bi dañ daan dugg ba si biir poste bi sax di di di di loolu tamit def nañ ci remarque boobu ñu ngi leen ci. fii liggéey bi daanaka daaru koso fii am na yeneen dëkk yu ko wër lu tolloog ci ay fukki dëkk wër nañ ko ñi ñëw di fajoo fii nii. Mhm. mairie bi tamit mu ngi mu ngi siy jàpp baax ndax bu yàggul dara rek lañu fiy jox fii benn benn dotation médicament mm-hmm. ci bu toll ci valeur bu ñu ko xaymaa mi ngi toll ci un million mm-hmm. loolu tamit ñu ngi ko si sante ñooñ moom daanaka suñ suñu sëriñ la suñu lépp la mm-hmm. parce que ba ñëwee ba léegi macha allah daanaka lekk gi sax fa lay jógee di ñëw ñu ngi xamal ni ne fii def leen ko comme seen dëkk loo leen fi soxla rek incha allah rabi boo leen ki kiiwee ñuy jox leen ko boobu moom ñun moom bëgg nañu su ma soñoon sama fii ma nekk nii post bi daanaka sax boo xoolee am na kii bees yi ñu fi def ci suñuy doolee bopp mais suñu sañoon daal ñi gën ñoo jàppale si post bi parce que bëgg nañ fi defar maternité bu bu bu mucc ay wutal ñu benn benn kii boo xamante ni nii euh, dépôt benn dépôt boo xamante ni ci lañu mën a def suñu garab yeeg yooyu waaw asalaamaaleykum euh, c'est Serigne Saliou mbay responsable de la Croix-Rouge locale de Darou Moussi sénégalaise waaw Croix-Rouge nag euh, ku ko xam xam ni euh, mission mooy euh, intervenir et prévenir ci activité ci ay manifestation yi nga xam ni day am ci zone bi nga xam ne moom fa la féete comme Darou Moussi arrondissement Darou Moussi bépp activité boo xam ne day rassembler ay nit rek Croix-Rouge da say da say teew ngir mission mooy lan mooy dimbali doomu aadama xeetali doomu aadama prévenir loo xam ni tamit mën na lor doomu aadama ci ci ci dundam. loolu daal mooy su tënk suñ mission bi nga xam ne tey moo ñu moo ñu fi indi pour mu si la euh, koso nag euh, comme ni ñu ko daan defee chaque année noonu lañu ko defee ren euh, li màggal moo fi am màggal goo xam ne day rassembler ay ay ay mbooloo mu takku kon day jaadu croix rouge ñëw teew fa comme ni ma ko waxee woon sànq ñun dañuy dox ci xeetali doomu aadama fépp foo xam ne mbooloo dafay taxaw dafay nekk croix rouge war na faa taxaw ngir gàllankoor bu amee mu mën a intervenir loolu daal moo nekk suñuy activité lu ci baree bari ci màggal yi Croix-Rouge moom volontariat la bu ñu waxee volontariat mooy ñun ñi nga xam ñoo ci nekk tamit dañ ciy def suñu alal mais tamit euh, nit ñi dañuy dimbali ci ci yenn activités yi boo gisee tamit comme màggal bu amee CRD li waral CRD mooy lépp bépp service boo xam ne dafay ñëw nga wax yow lan nga soxla ci matériel lan nga soxla ci jumtukaay ngir sa liggéey nga mun koo defee eh, normalement loolu moom ñi nga xam ne ñoo organisation événement yooyu ñoom ñoo koy ñoo koy chargé wu comme niñ ko daan defee rek biñ bañ ñëwee def nañ def nañ def nañ dispersing bi am na ñoo xam ne féete nañ leen ci kër sëriñ si am na ñoo xam ne féete nañ leen ci ci ci barab yoo xam ne jàpp nañu nit dafay daje pour en cas jéye bu amee ñoom ñu xool na la ñuy nan la ñuy taxaw taxaw doomu aadama yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ si la ñu ngi lay ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay di la ziare ci bis bi nga xam si moom lañ bokk muy bisu sëñ Mouhamadou Mbacke bi di la ziare di la delloo sëñ njukkal di wax ne bis bi moom taxawaay bi nii rek la daayira yëpp àndandoo nañ taxaw ci bis bi di liggéey ngir sëriñ Mouhamadane ak seen Maam Mor Koso suñu yaakaar ji euh, am na fi ndax ku mel ni fu mel ni Miftaaxul Muna mooy bopp bi mooy teet bi mooy daayira bi nga gis nii di daayiru sëriñ Maam Mor Koso ñoom ñoo yore wàllu organisation bi lépp ñi ci desit mooy fadlullaahi fadlullaahi mooy daayira bi ngeen gis ñu ngi jógee euh, Madiyaana euh, foofu lañ jóge ñoom itam ay soppe lañ Euh, sëñ maam Thierno moo leen fii tax a ñëw ñoom itam ñu jàpp ci liggéey bi euh, gis nañ seen taxawaay baax euh, fu mel ni daayira tuuti xidma bi nekk kër sëñ bi moom itam ñoom it ñoom lañ àndal loolu liggéey bi daal waaw foofu daal lañ nekkaguñu daal nekk fi leen siyaare di leen jaajëfal di leen xamal ne waañ wi fii mooy daaru koso daayira bi mooy daayira xeyaar mooy daayira tubaab bi di jiitul sëñ Cheikh ñoo nekk nii yore liggéey bi ñi nga fi gis ñu sol di gis maa yi meuf blanc yëpp benn daayira la ñun ñëpp ñu ngi ci ginnaaw Serigne Muxtaar mu borom daaru suñu teewaay fii nag bisu màggal wee ko waral ndax ñii ñooy waa waañ te fii nag liñ fi daje lépp lépp dara génn ci borom daaru mobilisation beeg cool geeg lépp benn lan bokk ndey bokk baay te lépp sëriñ bee ko waral tey jii moo na fi dajale kon nag du ma nu may sant ko waaw dina xamal rek waa waañ wi ñu ngi nii président waaw fii wax dëgg yàlla moom toogu daal lañu ñu féetewoo ak joxe tàngal kafe wax dëgg xéwal yaa ngi nii depuis démb ba léegi ñu ngi fi ci la ñëw toppatoo xéwal yi añ beeg reer beeg ndékki li ba tey defaraat añ bi fii nii ñu ngi nii ci reer bi nii. waaw li ñuy toogee fii nag mooy wër ñaari kër yëpp ndax dañ bu ñu toogee fii nii dañu fi jël ay cin yóbbu kër gu mag ga fa na fa la ne fa yóbbu séddale ko fa gane waaye teew li ñuy toog fii itam day law ba ci yeneen ba ca pénc kër yu bari ci dëkk bi xéwal day jóge fii dem fa an yamxu wa jumlataha anni wa tadhirahu li dëraku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 yéen ñi nga xam ne sax màggal ñu gis leen ci kër gi muy waa Tawfekh Production ñu ngi leen di siyaare bu baax di ñaan li ngeen yéene ci liggéey bi yëpp ngeen dajee ci lu kawe seen jot sax màggal nag ñu ngi leen di bàyyi xel ak ngir seen yitte yu am solo yi ngeen di def ngeen ñëwaat fii comme ni ngeen ko baaxoo ñëwee rek fii ci kër gi muy kër sëñ maam Thierno Mbacke di euh, di xalifa sëñ maam Mor Koso moom sëñ Mahmoudane moom nag daayira bii nga gis muy mbooloo Euh, marron blanc yi ñooy ab daayiram fii ci kër gi ñoom nag seen yitte jëpp rek ñu ngi ko jëmale ci liggéeyal sëriñ bi ngir dàkk ngërëmal Sëriñ Tuubaa ci sëriñ bi loolu nag di lu am tawféex kon nag boo leen ñëwee fii ngir bëgg a feeñal liggéey bi de deen leen ci sant bu baax daayira bi nag ni ngi leen gisee nii ay jàmbaar lañ lool fii ci biir kër gi waaye jàmbaar lañ itam ci mbooleem ci maanaam maanaam maanaam fépp foo xam ne njaboot sëñ Mamour ña nga fa wala njaboot sëñ Mahmoudane lépp loo xam ne war na leen rek ña nga ca kër gi nag ñëw ngeen ci kër goo xam ne wax dëgg yàlla ki ngeen fi fekk muy sëriñ bi mën na lépp ndax buñ gisee daayira bi nim sosoo ak fi mu yegg si tey ñu xam ne sa waxtu wu nekk suñu yaakaar day gën a dolliku waxtu wu nekk sunu pas-pas day gën a yéeg daayira bi nag liy seen sabab fii ci kër gi mooy fas yéene ñëw ànd ak sëriñ bi liggéey bi di sàkku mboolem taalibe yëpp ñi nga xam ne ñu ngi dégg suma kàddu képp koo xam ne ci kër gi nga bokk muy ngay taalibe sëñ maam maam Thierno ñoo ngi lay ñaan nga ñëw jàppale ñu ci liggéey bi ndax liggéey bi war naa gën a yaatu ndax mbooloo mi ñi ñi ñi jokk ci sëñ bi yaatu nañ lool waaye ñu ci baree baree bari ñëwuñu fii ci maam maam ci daayira bi bindoogun kon nañ gën a góorgóorlu bu baax laneen itam maanaam laneen nga xam ne bëggoon naa ko wax mooy waa daayira bi gara yi ñu am mooy xeetu bernde yi ak yëpp rek incha allahu taala fii ci daayira bi maam ku ñëw ci kër gi moom da nga xéewlu ba ba ba tabaarakallahu màggal gi dara manquéwul waaw lépp da maam maam dara manquéwul képp koo xamante si ni ñëw na rek lépp lu mu bëgg dana ko am su ko defee ma fàttaliku ponk bu am solo muy daayira bi yéen ñi nga xam ne yéen ngi dégg sama kàddu muy daayira bi mboolem fu waay nekk ci daayira bi ah dafa war a joxe jaayante bi nga xam ne daayira bi mu ngi koy laaj loolu itam ñu ngi ciy soñ di ci soñ ñëpp muy 6000 francs yi mu nekk addiye joo xam ne dañ koy jox sëriñ bi su ko defee ñu barkeeloo ko ci màggal gi ba déwén ñëwaat ñu maam ñu demaat waajaat ba deween loolu itam muy lu am solo nga xam ne maanaam mbooleem kër gi mbooleem liggéey bi fi am daayira bi moo koy taxawee loolu lépp nag li ñu ci jublu liggéeyal Sëriñ Tuubaa ak sàkku ngërëmal Sëriñ Mahmoudan maanaam sàkku ngërëmal Sëriñ Tuubaa ak Cerno jaare ko ci suñu sëriñ bi kon nag boo leen ñëwee tey fekk suñu fii ñu ngi leen di sant di leen gërëm salaam mbokk yi ngi fii ci kër soxna maam Fatim Mbacke ibnu bintu sëriñ Mahmoudan e, ci niñ ko daan nañ ko defoon ci ziare ci bis bi ñu ngi fi tey ci kër soxna maam Fatim Mbacke ibnu bintu sëriñ Mahmoudan Mbacke di kenn ci njaboot gi di ko xam ne it xam la ci bis bi di ko xam ne ku ñu xam la ci liggéey bi di ko xam ne wax yàlla ko am passif la ci kër gi taxawaay bu rafet lool nu féete fee ci kër sëñ Abdou Khoudou ci sëriñ Bassirou Mbacke ñu sëriñ Abdou Khoudou ñu ngi ko fi lool te wér te may ko wér ñaani soxna xam ne moom moo fi des ci njaboot sëñ Mouhamadou jigéen gi yàlla yàggal ko fi lool te may wér الكريم bisimilah salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaare waat nañ ko baaxoo def rek ci bis bi bu ñu ba léegi tey jii ñu ngi fii ci soxna Seydou Mbacke mu sëriñ Mahamadou Mourtala doonoon koo xam ne kenn la ci njabootu sëriñ Mamour gi nga xam ne moo féetoon moom di koo xam ne it ko xam-xam ko ci lislaam ku ko xam-xam ko ci taalibe bi doon jëmm joo xam ne ni ngeen gisee mbokki soxna yi toogee nii ñëw di ko siyaare ku am di koy am kóllëre di koo xam ne wax dëgg yàlla ku sàmm la li xam moom la ko sëriñ Mamour Mbacke féetale woon gannaaw bi mu fi jógee taxul mu soppi dara ci ab jotaayam lépp dafa nekkaat fii ci barab bi toog fi ngir taxawaat liggéey bi ngir taxawaat njaboot bi nga xam ne moom la àndoon ak sëriñ Mamour Mbacke moom la amoon ak sëriñ Mamour Mbacke doon koo xam ne wax dëgg yàlla ku féetale ku am solo la ci dëkk bi ci barab bi ndax satub suñ Tuubaa la te li li jam li am jamono li ëpp amul dara loo xam ne lu muy xool wala ci lu muy doxee la taxaw na ay yeneen bis yoo xam ne it dana ko def mu mel ni màggal Porokhane su ñëwee da def taxawaay am solo bis bii da ci def taxawaay bu am solo ak yeneen bis bi lépp lépp lépp kon ñi ngi sant mbokk yëpp di leen gërëm di ñaan suñu borom def ñu tawfeex bu baax a baax di ñaan yàlla doolu ñuy dimbale te def tawfeex ci lépp lépp luñ fi jëf rek ak lépp lépp loo xam wax def nañ ko yàlla nangul ñu di leen gërëm seen ngeen àndoon ak Tawfekh Production di bi ñëpp abonné ci te a baax jërë ngir jot suñu ay vidéo di di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës cloche bi bokk ci programme bi national international